jot mu ngi soog a jot ginnaaw de match bi mardi la man damay commencer ci commencement bi ma ni Zori nañu xam ni lii du match de football kese ndax l'histoire retiendra jël coupe d'Afrique da ngay dem coupe du monde par force nañu xam ne lii xare la nañu génn rayante nañu génn xeex nañu génn guerre ba pare mag ñi nga xam ni bu jàmbaari daan dem di daan xeex di xare ji ñoo leen di wayal doomi géwél yooyu nañ génnaat way man waxuma ki n'importe quel waykat de waykat yi jooyloo nit nga xam ni bu nu wayee sa yaram daw laal sa sensibilité nga jooy ñooñu nañ génnaat way loolu laa wax ñun nag supporters yi ñun nañu sécurité bi bàyyi ak suñu liberté total bàyyi ñoo comme ni ko Pape Sidy waxee ñu def lu ñu neex pour commencer animateur buy nopp lu ko amul lundi animateur da ngeen ni ñun ñëpp ay animé bongo maan yi ne ci réew mi nañu fexe ba teel ñoo wax hôtel bi zooru Égypte yi di dal hôtel tànn beer la ñu organise kenn mënuñu dara tànn beer fu ñu neex lañ koy def ñun ambiance ci la ñuy dox yëngu tànn beer avant ñu dem stade